الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وقال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين أرسله رحمة للعالمين wa qudwatan lil aamiliin wa xujjatan ala al ibaadi ajmaciin wa ala aalihi wa saxaabatihi wa ala taabiciin wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin wa bacd radiyallaahu an qutbil maktuum wal xaatimil muhammadiyil macluum mawlaanaa abil abbaas axmad attijaani wa an xalifatihi wa waarisi sirrihi saaxibul fayda mawlaana cheikhul islaam wa barakatul anaam cheikh alxaaji ibrahim ibnu cheikh alxaaji abdullah alkawlaxi radiyallahu anhuma wa nafaana bi barakaati wa radiyallahu an cheikhina wa mumiddina mawlaana cheikh ibnul xayr ayyadahu llahu wa nasara وعن شيخنا وقائدنا إلى الصراط المستقيم مولانا شرن إبراهيم محمود جلو وعن شيخنا ووالدنا ومرشدنا الشيخ محمد شام الذي أدبني فأحسن تأديبي وعلى آله وصحابتهم أجمعين وكل من دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام أيها الجمع الموفر أيها الحاضرين والحاضرات أصحاب المعالي أيها المقدمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله taxiyatu ahlil janna salaamun aleykum tibtum fadxulaha xaalidin mbokk yi bu ñu sant yàlla tabaraka wa taala julli ci yonente aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen tatagal di leen ziyaara wax marhaban bi kulli xayr jiital nag ci nuyoo bi ak ziyaara bi al imaam al akbar alxaaji jimba silla di ko ñaanal yàlla di sàkku mbokk yi fi teew yépp ñu ñaanal ko yàlla yal na yàlla may ko wér te yal na yàlla dëgëral taxawaayam am nañ ñeewente lool bi ñu ko gisee ndax yaram wi sutante waaye moom jotaay mel nii saay boo amee rek jaral na ko mu jaayante ñëw teew ak lu yaram luy sutante sutante ak lu jamono xat-xat-xat dina fexe ba ñëw teew saafoante jullit yi door a dellu ñu koy ñaaral yàlla yal yàlla may ku wér ñu ngi nuyu borom dëkk di El Ibrahima Kontey di ko ndokkeel ci jotaay bi di ko ñaanal yàlla ñaan yim fi sàkku pour yan bii nga xam ne moom lañ ko jox muy boroom dëkk yal yàlla woyefal yéen bi ci moom te yàlla na yàlla jàppandal ba nga xam ne lépp lu mu neseer ci dëkk bi yàlla defal ko ci tawfiq jaahi mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa di ñaanal kim fi wuutu mu nekkoon fi di suñu wayjur nekkoon nit ku baax nit ku bëgg diine nit ku bëggoon alxuraan waaye nit ku maandu woon te maandu nag bokk na ci yàlla digle inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaan mu nekkoon nit ku maandu ku moomoon làmmiñam nekkoon koo xam ne royukaay la woon ci dëkk bi muy alhaaji Cheikh Omar Kontey yal yàlla yërëm ko te jéggal ko yal na yàlla xare ko àjjana bi jaahi mawlaana te yàlla wutu ko ci njabootam nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañu rendre hommage ci bés bi di nuyu monsieur le maire suñu mag saani Diaw nga xam ne moom la yàlla dénk meeru dëkk bi di ko ñaanal yàlla ci taxawaayam bu rafet ak ci yéeneem ju rafet waaye ak ci liggéeyam bu rafet ci dëkk bi ndax ku daan ñëw ci jamono yi ci ginnaaw ci dëkk bi tey boo fi ñëwee di nga xam ne dëkk bi changé na ci lu bëri loolu yëpp nag ci yitteem moom ak ñim fi wuut woon mel ni ki imaam El Hadj Jimbe Sylla ci seen yitte ci la yàlla taaralee dëkk bi nii tey kon ñu ngi ñaan yàlla yan yàlla barkeel liggéeyam. te yal yàlla dëgëral taxawaayam di sant di gërëm mbooleem waa dëkk bi yépp ci góor ci jigéen ci mag ci ndaw bu ñuy limee ñooñu comme temps bi dafa xat ñu yóbbaale ñi ci des waaye dinañu sant di gërëm di ndokkeel tamit suñu sëriñ suñu doomu sëriñ muy Cheikh Mansour Wade nga xam ne mi ngi jógee ba ci ba bàyyi Baye alhamdulilah te du yoon bii rek la koy def waaye jamono bu nekk saa wu jotaay bi amee ci dëkk bi saa wu daayira bi xewlee dina ñëw teew macha allah ci teewin bu rafet dina fi yëkkate ay kàddu yu rafet dénkaane sottante xalaat ak mboolem taalibe yi. ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral taxawaayam ñaanal yàlla woy juróom ba mu fa bàyyi di bàyyi wàdd moom it yal na yàlla sàmm ko te yokk ko wér jaahi mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu mag suñu sëriñ suñu doomu sëriñ nekk fii ci suñu càmmooy di suñu doomu sëriñ di alaaji seexu mbay jóge ba ba Mbayeen ku ne xam ne ne Taïba Mbayeen ak Kër ma Mandongo benn dëkk la lépp lu xew Kër ndongo bu ñu ñëwee ñoom am nañ ci kàddu te danañ ci yëkkati kàddu yu rafet waaye lépp lu xewit Taïba Mbayeen waa Kër ma Mandongo demee danañ leen jox kàddu te ñoom it duñ ci am kàddu ñu yëkkati ci kàddu yu rafet kon ñu ngi koy daral di ko ndokkeel ci kàddu yu rafet yi mu fi yëkkati te yàgg na ko fee yëkkati ne yàlla dëgëral taxawaayam. guddal fanam may ko wér yàlla donnaloo ko maqaama way jur di ndokkeel di sant yi ci suñu ndeyjoor di alhaaji Mohamed Gueye di muqaddam bu mag ci hadara Mawlana Cheikh Ibrahim waaye xaasatan ci suñu banqaas di Mawlana Cheikhul Xayr ñaan nag ki nga xam ne mooy ñuy womat ci suñu sëriñ di coono Ibrahim Mahmoud Diallo moom it teew na fi di muqaddam bu mag di suñu xarit di suñu wóllëre ci lu yàgg nekk ca lan menge waaye di liggéey liggéey bu rëy ci xadara bi ba ca Dakar ba ca Casamance ba ci dëkk yu bari di ñaan yàlla yal yàlla gën a dëgëral taxawaayam te yokk ko wér yàlla defal ko yi jami xarakaatihi wa sakanaati di sant di gërëm suñu sëriñ nga xam ne daanaka mën naa wax ne mooy suñu taawu kër di boroom xam-xam bu mag di al ustaaz al imaam Mouhamed Lamine Guèye nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne jàngal nañ ñu alquran def nañ ci ñun xam-xam nekk nit ku baax di boroom xam-xam di borom alquran. loo xam ne dëkk bi yépp dooy nañ ci seede ci taxawaayam bu rafet ci dëkk bi ñu ko ñaaral yàlla yal na yàlla yàggal taxawaayam di ko sant di ko gërëm ci kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati na ko fi di ñaan yàlla yal na yàlla yokku xam-xamam daara ji yal yàlla saxal ko yal yàlla dëgëral ko na yàlla yokk mbooloo ni bi jaahi mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye ñu fàtte suñu mag suñu sëriñ nga xam ne daanaka fi mu ne mooy fii suñu wayjur di bàyyi daam caam teew na ci jotaay bi nga xam ne moom sax daanaka amoon na ngànt doon naa wax sànq ci ginnaaw ne ci fi nekkoon borom dëkk di El Hadji Cheikh Omar Konté royukaay bu mag la ci diine ci pas-pas ci maandu waaye loolu laay wax tamit ci suñu wayjur wi di bàyyi daam cam mu nekk koo xam ne daanaka amoon na ngant jamono bu nekk muy ñëw ci jàkk ji ndax yàlla nattu na ko ay bëtam muuru waaye li tax ma ne royukaay la li tax ma ne kenn amatul ngànt ñu nodd ci jàkk ji nga toog jullee sa kër moom moo tax ndax yàlla muur na ay bëtam waaye yitteem ci diine ak ci mbaaxam jaral na ko mu jaayante ak suñu mag ju baax ji nga xam ne mooy suñu lépp tey di Cheikh Mohamed Thiam wax ko ne ko man daal bu ma sañoon jul waxtu yépp ci jàkk ji laa koy jullee waaye wenn waxtu rek moo ma jaaxal muy fajar te mënumaa yóbbu sama bopp loolu daal soo ma ci dimbale woon dana baax ci mbaaxam moom it suñu mag Mouhamed Thiam jaayante loolu fajar gu nekk mooy ñëw fëgg buntu néegam xommat ko ñëw indi ko ci jàkka ji mu julli kon lii nee naa dagg na ngànt ci képp kuy jullit nga toog julli sa kër waxoon naa ko ba ñu demee cubbeen ziyaara ji suñu sëriñ almaalimul kabir alaalamul kabir al ustaaz cheikh Mahamadul Bachir ñu waxtaan ak moom ba mu yàgg jàkka ja noddu mu woo doom ji ne ko kaay woo mat ma ñu dem julli ji ca jàkka ja ma ne ah sëriñ bi Cheikh Mohamed Thiam ma ne ko lii kat ak njàngat la mooy wane ne kenn ci ñun amatul droit jullee sa kër comme moom mi yàlla nattu moo toog ba xalaat benn waxtu fas yéenewul mu raw ko ci jàkk ja kon rawatina ñun kon ñu ngi ndokkeel suñu baay daam caam di ko sant di ko gërëm ci teewaayam di ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam na yàlla may ko wér jaahi mawlaana rasulillah di sant di gërëm suñu mag suñu kilifa nekk imaam ci dëkk bi di moo am alxaaji Mohamed Thiam nga xam ne mooy suñu kilifa ñu ngi koy ñaaral yàlla yàlla dëgëral taxawaayam nekkit moom it boroom xam-xam bu mag nekk nit ku baax wommat ñu dimbale ñu teete ñu bi suñu jur génnee àdduna ba léegi daanaka moom mooy suñu lépp ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral taxawaayam te guddal fanam te may ko wér di sant mbooleem ñi fi teewu ñépp di leen gërëm di wax ne képp kuñ tuddul ñu ngi jéggalu ci loolu ñi tudd danañ la yóbbaale ginnaaw loolu it ñu ngi sant suñu mbopp yu baax yi nga xam ne ñooy tooyal xol yi ñooy tudd yàlla mu neex ci xol yi alhamdulillahi woykat ba nee na woon adikru yaftaxu baaban xiina yanfatixu taxiya alquluubu wa minhu sadru yansarixu nee na tudd yàlla mooy tijji mbooleem bunt yi mooy tijji mbooleem bunti xadara yàlla bi mooy dundal xol waaye ci la dënn yépp di ubbeeku kon ñooñu ameel nañ leen sant ameel nañ leen gërëm ci jamono bu nekk ci jotaay bi ci seen teewaay ci njiital suñu soppee suñu xarit nga xam ne dëkk bi yépp xam nañ ko te ci loolu lañ ko xamee woon bi mu fiy nekk bi mu nekkul nekkulit ba tey te mosu fee ñàkk nekk ci lañ ko xam muy a Cheikh Ibrahim Thiam Zakirul Kabir Cheikh Ibrahim ñu ngi lay ndokkeel ci bés bii nga xam ne sa bés la nga xam ne moom dafa jël boppam boole ko ci daayira bi wax ne moom doomu Kër ma ndongo la kon lépp luñ woote ci Kër ma Mandongo moom ca la bokk mu nekk it sama doomu ndey di sama soppe di sama wëlëre kon Cheikh Ibrahim marhaban ànd it suñu soppe suñu xarit Tamsir Touré nekk it zikarkat bu mag nekk it zikarkat bu mag nga xam ne ràññee nañu ko ci jotaay zakirul kabir Cheikh Ibrahim Ndaw nga xam ne mbooleem muhaadaraat yi nga xam ne mooy am ci pays bi moom moo koy taxawee teew na fi macha allah ñu ngi koy ndokkeel di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla yal na yàlla gën a wéral baat bi moom ak Ibrahim waaye du ñu fàtte teew na fi. ñu soppe suñu xarit zakirul kabir aydan baay mbay ja dëkk fii ci kër ma Madiabel di suñu soppe suñu xarit di ci karkat bu mag waaye duñu bay suñu rak suñu soppe cheikh ibrahim caam ñu gën koo xam ci bay caam aaqib nga xam ne dëkk bi yépp miin nañ ko fii ci jotaay bi ci tudd yàllaam bu neex ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ndokkeel ci teewaayam di ñaan yàlla yal yàlla wéeral seen baat bi jaahi mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa di continuer suñu nuyoo ak suñu tatagal ci al imaam Mouhamed nga xam ne moo dëkkoon ak suñu jur wu baax wa que ñépp xamoon ci dëggu ci mbaax ci laabir ci bëgg lu baax ci bëggal ko doomu aadama yépp ak fu nit mën nekk ci àdduna waaye rawatina waa Saalum ga nga xam ne saay yu gisaan dëgg du ci gëmm du ci noppi muy almuxaddamul kabirul akbar alhaaji barham ñas ci kër ma jibeel ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla sàmm njabootam ijaahi moolaana rasulullahi cheikh mohamed Thiam mii moom si mooy eh, alhaaji barham ci kër ma jibeel moom moo ko doyloo woon def ko muy imam di tarawiix ci la weeru koor moom mii moo ko daan jiite ci alxuraan ju rafet kon teew na fi ci jotaay bi ñu ngi koy tatagal di ko sant di ko gërëm mu ne sëriñ bi nee na yokk na ci mooy ki ñuy dégg chaque suba teel ci Tawfekh FM macha allah muy sottante julli ci ay waxtaan yu am solo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na barke sëriñ bi des ci moom ak ci njaboot gi yépp waaye ak ci tund bi yëpp di sant di gërëmit suñu docteur médecin chef muy caam nga xam ne dëkk bi yëpp xam nañ ko ci mbaaxam ci yarum ci laabiiram ci disponibilité am waaye ci oyofam waaye ci bëgg gum bëgg Kër Mandongo waaye ci bëgg gum bëgg mbooleem waa Kër ma Mandongo ci taxawaayam bu rafet ci hôpital bii nga xam ne moom lañ ko dénk kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel liggéeyam ba képp kum tiim malade bum tiim yal na yàlla def ci moom shifaan taamman jaahi mawlaana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam di sant di gërëm mbokk yi fi teew yëpp suñuy jarbaat yi daam caam ak mbooleem ñi fi teew ñëpp bu ñu limee duñu matal waaye duñu fàtte ki nga xam ne moo ànd ak mu sele maire ci liggéey bi di suñu mag di suñu njaatige di suñu taawu kër di Madi Diop nga xam ne moom moo ñu nekkal fii ci kër gi nga xam ne bu ñu mënee toog ci àll bi suñu xel dal moom mii moo tax ñu ngi ñaan yàlla yan yàlla guddal fanam damay ko wér ñu fàtte kii dend ak moom di Cheikh Basirou Sylla tudd gi ñu tudd imaam sax yóbbaale na ko waaye mi ngi fi teew teewal fi imaam ak mboolem wàcc leen yépp duñu fàtte al imaam tam duñu fàtte al imaam suñu turandoo Cheikh Silla duñu fàtte mbooleem képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi rek ñooñu danañ yóbbaale su nuyoo ñu ngi sant di gërëm mbooleem waa dëkk bi góor jigéen mag ndaw ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp waaye du ñu fàtte kii janook ñun muy caméraman bi nga xam ne lépp lu xew ci dëkk bi dina ci ñëw liggéey ci liggéey bu mucc ayib ñu ngi ñaan yàlla na yàlla barke liggéeyam ñu ngi sant waa dëkk bi yépp góor jigéen mag ndaw kenn ku ci nekk taxawaayam rafet na ci bés bi ndax bés bi bés bu rëy la bés bu màgg la lu tax mooy ki ñu jagleel bés bi dafa rëy dafa màgg muy yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kenn ku ci nekk la nga ci def mu néew mu bëri gis nañ ko yàlla nga ko jaayante ak borom bés bi yal yàlla fayante ak yow bàyyi ne neen wa kullu man jaada bi shay li mawlidil muxtaari ay karamatan li xayri ay fa innahu kaman wali radiyallahu anhu yonent boobu nga xam ne mooy jëmmi yërmande moom la yàlla waxoon ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin yónni wuñ la dul nga nekk yërmande ngir mbindeef yépp waxaat ko ne ko wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa nasiran wa daa'iyan ila llahi bi iznihi wa sirajan munira sallallahu alayhi wa sallam yal nañ ko yàlla fayal kon kooku moomoom bés bi yàlla jagleel ñu ci mooy bés bii ren dafa nekk bés bu gën a màgg ndax dafa tombeek weer wu mag muy weeram moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci atu jant bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi juddu woon fukki fan ak ñaar ci rabiul awwal ci weeru gàmm loola mi ngi tombe woon ñaar fukki fan ci weeru avril kon moo tax ma ne ren gàmm gi alhamdulilahi yàlla def ko yéege ci maqaama bu kawe ngir yërmande yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñaan yàlla yërmande jooju yàlla na yokk yàlla ba mu dañ di dotteeku di wàcc ci ñun di wàcc ci mbooleem xeetam bi jaay rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yërmande jooju moo tax bàyyi woon raaytu rasulallahi jahran aynan li rahmatin bihi yahtadi man dalla في مهمي الخفر ضللت به يوما wa وثالثا وما هو إلا المصطفى للمناقر baay moom radiyallahu anhu moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ko mu nekk di jëmmi yërmande jëmmi joo xam ne képp ku janook moom képp ku jubli ci moom rek di nga gindeeku ndax loolu moo ko dëggal ndax moo wax ni innama ana rahmatun muhdaat moo wax ne man yonent yàlla Muhammad man jëmm yërmande laa joo xam ne damay gindi képp ku janoog man kon ñu ngi sant yàlla tabaaraka wa taala ci weer wi ci bés bii mu dëppoog weeru avril dëppoog weer wi nga xam ne alhamdulilahi nga xam ne mooy suñu sëriñ mooy suñu soppe mooy suñu gidd i mawlaana cheikhul xayr at mu nekk dina ko màggal ca Mauritanie ñaan yàlla yan na yàlla yàggal yan na yàlla dëgëral taxawaayam moom ak suñu mursid Cerno Ibrahima Mahmoud Diallo kon bés baa ngoog ngeen xamee ko noonu yan yàlla jox ñu mbooleem imdaad yi ci nekk ak mbooleem nafahaat yi ci nekk ak mbooleem ngëneel yi ci nekk yan yàlla defal ñu ko defal ko mbooleem ci fi teew bi jaahi mawlana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam defal ko waa kër ma dongo yépp di sant di gërëm mag ñi fi teew ñépp bàyyi seen yitte jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yan na yàlla fayante ak ñoom kon loolu moo doon tarxiib bi moo doon nuyoo bi moo doon tatagal bi ñu dalalee ko suñuy gan ak waa dëkk bi yépp ñaan yàlla yan na yàlla may ñu ñu fekkee ko at yu bëri jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nag ñu dugg nag ci waxtaan bi waxtaan bi dañ koy tënk rek ci loo xam ne du génn wax suñu sëriñ muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ndax dañ ma ne naa wut tem ma ne leen tànnal naa leen xamal leen taalibe Baay naka la war a mel ak yenn critère la ñu soxla ci taalibe Baay ak lan mooy mawqifam ci barab bu mën a teew ci àdduna bi ndax dafa war a joxe le bon exemple waaye mën naa ci dugal sax ne taalibi tijaan ndax ak tijaaniyatu cheikhu tijaan nee noon man fi yaarifuni wax di dafay duggaat ci biir ñu jël benn leetar ci ay leetaram muy leetaru ñetteel ci jawaayiru rasaayil muy leetar boo xam ne Baay radiyallaahu anhu daf ci def ay ndénkaane yu am solo ndénkaane yoo xam ne képp kuy taalibe bu duggee ci sa nopp te mu wóoteeg la ngay dundee walla mu wóoteeg na ngay dundee wala mu wóoteeg sa taxawaay ci hadara bi moo xam mu xaddam nga wala taalibe nga nee na leetar bi bu duggee ci sa nopp te nga amoon beneen taxawaay bu wóoteeg boobu yow war nga tiit war nga xoolaat sa bopp mu nekk lettre boo xam ne Baay radiyallahu anhu mi ngi ko adressé woon ñaar ci ay taalibeem muy ku ñuy wax Ahmed Thiam ak Malick soow ñu nekkoon ay muxaddam yu mag yu baax yu jiite woon ay mbooloo jamono dox ba ay xew-xewam ca ndax jiite mbooloo dafa métti dafa doy waar ndax li tax boo nokkee njiit boo tarxiisee boo daanoo di nga daanu waaye di nga daane laale ñi nga àndal ñépp moo tax képp kuy njiit war nga fexe tegu ala siraatil mustaqim loolu mooy li jaadu bàyyi nag bindoo leen lettre bi adressé leen ko ngir jàjjaat leen ñoom ak ci seeni taalibe ñaan yàlla leetar bii lépp luñ fi wax ñu xam ne waxu bàyyi la du suñu wax ñaan yàlla yàlla defal ñu ci degg ak topp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam leetar bi bàyyi mi ngi ko tàmbalee ci bismillahi arrahmani arrahim al aziz al muntaqimu al azizu al jabbar al mutakabbir والسلامان على الرسول السيد العبد القائل يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيء bay mu ne maa ngi tàmbalee sama wax ci turu yàlla niñ ko xamee ñun ñépp mooy képp kuy jullit lépp looy tàmbali danga koy tàmbalee ci turu yàlla muy bismillahi arrahmani arrahim yonent bi nee na lépp luñ ci tàmbalee rek mbir moom yàlla dina ko yeggale dana ci def tawfiq ak taysir mu ne almuntaqim yàlla mi nga xam ne mooy mbugeelekat bi al aziz moom mi nga xam ne moo not ci nguuram al jabbaar yàlla mi nga xam ne mooy aji mbaru ji al mutakabbir yàlla mi nga xam ne mooy aji rëy moom rek moo jagoo rëy boo déggee li bay tàmbalee reetal bi rek nga xam lan la bëgg a wax bay mu ne wasalaamaani ala rasul ñaari nuyoo yàlla na nekk ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam arab nangu na wasalaamaani waaye nangu wut wasalaataani asayid yonent bi nga xam ne mooy sang te moo ko feddalil boppam ana sayyidu waladi aadama wala faqar nee na man may sangu mbooleem lu soqeekoo ci aadama waaye nag waxuma ko ngir puugare dama koy wax ngir sant yàlla ndax moom mooy jëmmi sant yàlla mu ne ci nga xam ne mooy jaam jaam di maqaamam bi gëna a mag ci maqaamam yi nga xam ne saa yu yàlla nar a wàccee ci moom maqaama wala saa yu yàlla nar wàccee ci moom ay maratib jaam la ko fay tuddee bu yàlla wàccee ci moom alquran jaam la ko tuddee subhaana allazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharam ila almasjidi alaqsa tabaraka allazi nazzala alfurqan ala abdihi kon jaam boobu bàyyi nee na maa ngi julli ci moom alqaa'il yonent bi wax ne moo wax ne doomam yaa fatimatu bintu muhammad laa ugni anka min allahi shay'an munu ma laa ci yàlla dara liggéeyal sa bopp kon baay teel na jàngal ay taalibeem ne leen leen jëriñ ci yàlla ci dara lu dul dañoo liggéeyal seen bopp liggéeyal gi ñu war a liggéeyal seen bopp nag taraaseel na leen yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaar duñ ko wàcc mu jëlee ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dellu ci borom bi tabaraka wa taala ama baad bàyyi nee na ginnaaw bu mu sante yàlla yéen ñi teew ci tànt bi góor jigéen mag ndaw taalibe tijaan ak mboolem umma islamique bàyyi nee na ginnaaw bu mu sante yàlla jullu ci yonent bi sallallahu wa sallam ci sant gi nga xam ne mooy yell ci moom mu ne sama nuyoo maa ngi ko jëmale ci suñu wayjur Ahmed Thiam ak Malick Sow waxoon naa la ci départ bi ne la lettre bi bàyyi moo ko bindewoon adressé ko ñaar ci ay taalibeem waaye nag dina la wax léegi ci kanam ne yemul ci ñoom ñaar rek waaw lu mu ca teg wa ila kulli man yaqifu alayhi ci képp goo xam ne yaa ngi taxaw ci seen ron wala lettre bi yegg si na ci yow bàyyi nee na yow lettre bi maa ngi la koy adressé yow tamit mbooleem ku teew ci tant bi bàyyi nee na lettre bi mi ngi la koy adressé mbooleem ku jullit nekk ci àdduna bi te dégg suñu kàddu ci rajo ak télévision ak ci internet bàyyi nee na leetar bi ci yow la jëm si kon leetar bi ci ñépp la jëm ñu bàyyi ci xel nee na képp koo xam ne yaa ngi askanoo ci ñun di woote woone ci ñun nga bokk bàyyi ne na yow it jàppal ne leetar bi yaay borom lan la wax ñu ne ko waaw bàyyi leetar bi ngay wax nii leetar bi yéeme na de lan moo ko waral mu ne mujibu wal i'laam bi ann isnayn li waral lettre bi mooy ñaara ngi nii laysa minni wala min at-tariqati fi shay loo xam ne ku ko dégg war na la tiital boo dee taalibe tijaan wala ngay askono ci moom mu ne ñaara a ngi nii bokkuñu ci man baay bokkuñu ci tariqa tijaan bi ci dara nag ajib ñu ne ko mooy ñan mu ne majsuubun lam yuslak wa saalikun lam yujzab in baqiya ala xaalihima wa waqafa ala sayrihima mu ne ki yàlla ki ñu gës te soobuul ci xadaraat yi pour bay nee na yow xamal ne bokkoo ci man yaa ayuha almajzuubu in lam tasluki fa ante anta abtarun wa wayki fasluki yow maj suub bi boo amee jës biya ba dellu ci yàlla tabaraka wa taala soo fa yemee rek soobu waatoo ba ràññee xàmmee bàyyi nee na baykat bi nee na nga xam ne perte nga ndax yegg si nga ba fi nga waroon a jariñoo nga wane ginnaaw ñu ne ko ak mooy saalikun lam yusab nga xam ne soobu na waaye kenn jës boo ko amul jës bi ñene ñaar ñii ñëpp feek ñi ngi des ci xaal yi bàyyi nee na jotewuma ak ñi dara kon mu nekk lu doy waar lu mat a bàyyi xel ñu ne ko waaw léegi nag luy solution bi mu ne wa inni sha'ni kama alim man daal sama mbir comme ni ngeen ko xamee rek man arada an yakuna maayi fi xaali fal yasluk tariqi fi l aqwal wal afaal mu ne daal man bàyyi sama mbir su ngeen bëggee noppalu comme ni ngeen ko xamee rek ku bëgg a ànd ak man daal ci sama xaal ni ma ko bëggee mu ne na nga sóobu sama yoon fi l aqwal wal afaal fi l aqwal ci wax yi mooy bul wax lu ñaaw bàyyi musul wax lu ñaaw rawatina nga jëmale ko sax ci kudul jullit waxumalaat nag ci jullit waaye waxumalaat ci taalibe tijaan waaye wax xaasatan koo xam ne yow ak moom yéen bokk naan waaye muy xadara bi kon loolu lu doy waar la wa fil afaal bul mos a jëf lu ñaaw ndax bàyyi mosul jëf lu ñaaw fépp fu mu mos dem ci àdduna bi jëf na fa lu rafet képp ku ko mos a xam ci àdduna bi jëflante na ak yow jëflante bu rafet ci réew mi ak ci biti réew kon yow mi ànd ak bàyyi na nga am boobu mawqif fépp foo nekk na nga xam ne moom nga fa représenté booy wax na nga wax lu rafet booy jëf na nga jëf lu rafet ndax na nga joxe le bon exemple kon ñu déggandoo ko lu mu ca teg wax yi na rafet jëf yi na rafet waaye nag nañ ko teg bimtisaalil awaamir wajtinaabin nawaahi nee na it nañ ko yokk di jëfee ndigal yàlla yi waaye it di bàyyi tere te loolu moom la bépp mu xadam war a digal taalibe bi muy jëfee ndigal ak bàyyi tere ndax xeet wii ñu bokk muy xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ñu tagg lan la yàlla taggee kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mbooleem xeet wu fi mos yaar wu fi mos a jaar xeet wu yàlla mos bind xeetu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën yàlla indi illa ja mel ni dañ ko ne waa borom bi lu tax mu ne taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar kon lii la yàlla tagge ñun xeetu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon képp ku ànd ak sëriñ bi nanga am bii mawqif kon ñu bàyyi xel ci imtisaalul awamir ci ijtinaabu nawaahi waaye nag fi zaahiri wal baatin nañ ko def ci li feeñ ak ci li nëbb bu feeñee nañ topp ndigal yi bu ñu nëbboo nañ topp ndigal doy na ci benn exemple rek weer wii ñu génn muy weeru koor ku ci woor ba digg bëccëg boo santee saar lool bu duggee sa néeg ubbi frigo bi xool lépp di ay naan yu sedd boo deful jëfewul ndigal yàlla ci li nëbbu mën ngaa def njombe te kenn du ko xam waaye foofu la di wanee ragal yàlla dëgg nga wane ragal yàlla ci li feeñ moo tax bàyyi ne jëfee ndigal yi ak bàyyi nañ ko def ci li ak ci lan la ci teg mooy watte attush ñu taalibe bi jamono bu nekk war na fexe di mar di mar ngir am ndollal ngir am ziyaada ci xadara yàlla tabaraka wa taala ngir am ndollal ci xam-xam ngir am ndollal ci ay waaridaat waaye ngir am ndollal ci lépp lu mën a nekk taalibe bi war na ci mar waaye nag wa shawq war na tamit di sàkku cofeelam di yokk daa ci sëriñam waaye cofeel gi bu ko wekki rek ci buñ tuddee sëriñ bi nga ne est-ce que yuuxu mbëkk miir bi te fekk loola nekkut ci xol bi déedéet bàyyi waxul lool de misri yi nee na Mouhamadul Misri mu xaddamu baay bu mag boobu nekkoon ca Mauritanie ñëpp xam nañ ko ine woon la amri lama xubbul xalilu bi annatin wala zafratin kalla wala faydu abarati walakinahu wallahi fi lqalbi cholatun tuajjijuha al ashwaaqu fi kulli lahdatin nee na sopp gi ma sopp sëriñ bi ne ko rek buñ ko tuddee ma binni yuuxu ne eskay waaye déene déedéet ne nag mbëggeel googu tàkk-tàkk la bu nekk ci xol bi nga xam ne jamono bu nekk cofeel gaa ngi koy jéq ngir sofeel loolu la bàyyi soxla ci taalibe bi te muy dëgg ci yow ci boo laqoo ak boo teewee ci kanam sëriñ bi yépp loolu lañ soxla beneen bi ci des mu ne nag cofeel googu daa iman na wekku ci jaam bi di sàkku di yegg ci boromam di dajeeg boromam waaye di dajeeg ngërmaandee boromam ndax yàlla tabaraka wa taala moom rek moo mën a gërëm jaamam waaye ngërmaande loolu nag jaam bi moo koy sàkku ci jaar fa ko yàlla sant ba dajeeg boromam mu ne ko yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbik raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati kon loolu jaam bi moo koy sàkku kon loolu la la bàyyi digal yow mu teg ci kon nga ne ko léegi kon yow ñi ànd ak yow naka la ñu war a mel kon kii woote woo taalibeem ban mawqif la war a am ban taxawaay la war a am bàyyi ne ama man yantasibu ilayna wa yartakibu shay'an min muxaalafati sharii almutahara alsharifa biixtihaami almuharramaat wa tarki alma'muuraat fa ushhidu allah wa ashhidukum anni bari'un minhu allahu akbar bàyyi nee na képp koo xam ne yaa ngi askanoo ci moom ne yow taalibeem nga moom nga gëm ba pare nga walbatiku di toggoo di bënn ay yu xaraam di toggoo ay ñaawteef doo def li la li yàlla tere doo ko bàyyi toujours yaa ngi jëlgati sharia bi maana laab gi yàlla sant doo ko def nam waree julli yi yàlla sant respecté woo ko waaye rawatina doo ko def ci mbooloo waaye rawatina doo ko def ci jàkka te amuloo benn ngant nga teg ko ci sa bakken bàyyi nee na maa ngi leen di seedaloo yéen ñépp maa ngi seedaloo yàlla ne kooku man bàyyi dañ naa ci moom allahu akbar mu nekk wax joo xam ne képp ku ko dégg war nga tiit bu fekkee yaa ngi woon ci safaan bi yan nañ ci yàlla musal mu ne nag allahuma inni bariun ilayka mimma sanaa haulaay mu ne yow borom bi maa ngi lay wax ne maa ngi dañ ci liy gaa ñii jëf xamal ne man dañ naa ci ñii di woote woone man lañu àndal di jëfee yii jëfit bàyyi nee na na nga xam ne yow borom bi séedeel na ñii dañ naa ci ñoom kon képp ku nekkoon ci sabaan bi nanga waññeeku te xam ne lii ak jàjj la ci yow mu indi benna ay alquran boo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko wax ci suuratu nuur ci aya 63 mu ne fal yaxdari allazina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim alquran nee na yàlla nee na nga xam ne toujours dañuy wooy dañuy wuuteeg ñun yàlla ci suñu mbir muy la ñu santaane duñu ko def la tere duñ ko bàyyi yàlla nee na ñooñu nañu xam ne mbugal mu metti mu ngi leen di xaar wala fitna ju rëy mën naa wàcc ci seen kaw yal nañ ci yàlla musal kon lii na ci ñëpp def ak jàngat nga ne kon nag baay kon léegi lan mooy solution bi mu ne wa tuubu ila llahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun mu indiwaat ay alquran ndax moom léppam alquran la mu indiwaat ay alquran yàlla tabaraka wa taala nee na wa tuubu na ngeen tuub yéen jullit yépp képp ku ci nekkoon ci safaan ilallaahi jëm ci yàlla laallakum tuflixuuna ndax ngeen texe ndax li tax mooy afallahu amma salaf yàlla ñaawteef yi jaam bi def wëlbatiku tuub ko jéggalu ko boromam yàlla nee na man may jéggalekat bu mag bi man may jéggale mboolem li jiitu woon su fekkee jaam tuub na te tuub gi dëgg ci moom te mu matal yépp waxaat ñi ne yaa ibaadi laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamian yaa ibaadi alladina ashrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah yàlla nee na bu leen naagu ci yërmande yàlla ndax man yàlla man maay jéggale bakkaar yépp moo tax jullit bi bul jàdd di mooy ba naagu ne yàlla dootuma yërëm wala yàlla dootuma jéggal déedéet loolu erreur la yal nañ ci yàlla musal mu ne wa ma qultu min anna muridi wi'aa un mumtala'un min asraari a salaasa walakin ayna muridiya minkum mu ne waaw du yéene wax ne man sama taalibe lu ñu war a sala la ci mbooti ñett mu ne kon su fekkente ne ni loolu amul kon ana sama taalibe ci yéen question boobu la posé kon nag bu loolu amul rek. yow jëlal question bi moomale ko sa bopp xam ne bàyyi yow lay waxal mu ne fa woo min awasu min kibritul amar mu ne kon sama taalibe daal moo gën a jafe kibritul amar muy mercure rouge kon képp ku taxawul ci taxawaay yi na nga xam ne wax ci nga bokk mu ne nag in kaana al amru kama wasaftum wa yusiku an arfau al izd an kulli muqaddamin yaqtahimu bi xadratihi al muharramat wa lam yaqum bima wajaba alayhi lan la ci bàyyi teg mu ne su fekkee ne mbir mi comme ni ngeen ko waxee la yéen te noonu la amee man xawoon naa sax bépp mu xaddam boo xam ne joxoon naa la ndigal ngay toggoo di bëtt yàlla xaramal nee na ma nangu ijaase ba ma la joxoon lu yéeme ngir lan te fekk yow taxawuloo ci li war ci li la war ci li yàlla santaane ci yow waaye taxawuloo ci li la war ci sa digganteek say taalibe mooy li war ci ñoom mooy nga xamal leen jubal leen teg leen ci siraatal mustaqim waaye nag def ci ñoom aadaabu suluk muy ay teggiin ndax bàyyi nee na woon taadduban fi zahirin wa batinin bihi yuraqa almaru lil mawatini nee na nga am teggiin yow taalibe bi ci li feeñ ci li nëbb ñu ne ko lu tax mu ne ci teggiin yooyu ci la taalibe di yéegee jëm ci boromam kon taalibe bi sëriñ bi loolu la ko war a digal mu ne nag bu fekkee ne yow sëriñ bi nag lottu nga ci loolu bàyyi nee na kaay mu wutal solution mooy yu haajir ilallahi wa rasulihi wa ilayna mu ne kon na nga gàddaay jëm ci yàlla ak jëm ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye na gàddaay jëm ci ñun boo ñëwee ñu tegaat la ci yoon fii lay jàngale ne taaliba bu nekk rek waruloo gëj sa kër sëriñ dana ko wax ci kanam mu ne su fekkee yow mu xaddam bi gis nga lu la metti ci sa mbooloo def nga ci pexe mu nekk mënta sotti te bëgguloo say taalibe jaar ci yoon wu wuteeg aw yoonam bàyyi ne na léegi pexe bi solution bi mooy gàddaayal nga jëm ci yàlla ak ci yonent bi waaye nag nga jëm si ci ñun ndax li tax boo ñëwee ci ñun di ñu fi fekk yàlla di nga fi fekk yonent bi dinañ la tegaat ci yoon mu ne wallahi ma awqafa sayru ulaayka xatta rajacu ila taannusi bilxawaadis illa tuwala ahdihim bina mu ne li waral loolu yépp nag lenn rek la mooy taalibe yi dañuy gëj ci seen kër sëriñ bi dañuy ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi jox la wérd teg la ci yoon suluuk ba nga am jasbiya nga fàtte sa sëriñ delluwaat ci àdduna topp ko di ko wettili ko ba fàttewaat yoon wiñ la tegoon delluwaat ci yoonu àdduna bàyyi na ne loolu moo leen yóbbee loolu yépp moo tax sëriñ taalibe warul di gëj kër sëriñam dégg naa ci suñu wayjur alhaaji Moustapha Guèye radiallahu anhu dafa dem Italie dajeek benn taalibeem mu ne ko sëriñ mi na nga def maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara xàmmeewu ma mu ne ko déedéet xàmmeewu la de mu ne ko man de yaa ma joxoon wirda mu ne ko yaa bon yow ma jox la wirda déggatuma la gisatuma la ba ma gis la tey xàmmeewu ma la yow de baaxoo loolu nag taalibe bu nekk war na ko moytu ndax bàyyi ñaax nañu ci moytuloo ñu ko mu ne nag képp koo xam ne yaa ngi teew man adara maana fi kathirin min al awqat mu ne na képp koo xam ne yaa ngi teew ànd ak ñun ci lu bëri ci waxtu yi danga dem sax ba fàtte bànneexu àdduna yi képp koo xam ne yoonu suluk wi la sa sëriñ teg jës bu la nga jaar ci yoon woowu yaa ngi ko topp di wettalikoo sa sëriñ di ñëw ci moom di ko nemmeeku di yokk ci moom ay xam-xam daa iman bay nee na képp koo xam ne ni yaa ngi tegu ci yoon woowu wàccoo ko nee danga dem ba fàtte bànneexu adduna yi li lay yitteel mooy sa sëriñ rek ak xam-xam bi muy def ci yow mu joxe exemple mu ne fa innahunna shubbaanan sigaaran qad nashuu taama shahawaat xatta inna minhum man yansa zawjat wala yatiha illa bil izni wal ikram mu ne ndax firnde gi mel ci jox man baay mooy fii nii am na fi ay ndaw yoo xam ne yu ndaw a ndaw yoo xam ne dem nañ ba fàtte banneexu adduna yi dem nañ ba fàtte adduna li ci biiram ngir lan ngir xam-xam bi ñuy def ci ñoom ak aadaabu suluk yi ñuy def ci ñoom ak teggeen yi ñuy def ci ñoom ak maxaame yi ngeen di yéege dem nañ sax ba fàtte bànneexu adduna yi ba sax dematuñu ci seeni soxna ba man baay maa leen di digal neleen leen eh yéen ñii kat war ngeen dem ci seeni soxna ndax am nañu xàq ci yéen mu ne waaye duma ci yem sax ndax dama leen di forcer ne leen dem leen ci seeni soxla bàyyi nee na taalibe bu jaar ci yoon u jub nee na dina yegg ci maqaama bi mu teg ci ne hakaza tilamisi mu ne nag nii la sama taalibe di mer man bàyyi wal xayr laa képp nag ku teguwul ci yoon wi bàyyi nee na doo sama taalibe de lu yéeme lu raglu kon nag képp koo xam ne yaa ngi woon ci lu wuuteeg ci lii ñu fi wax na nga xam ne bàyyi yow lay wax ñu ne ko léegi nag nu ñuy def mu ne fala budda min arrujuu ila allah bi tawba والامتثال والاجتناب والزعد والورع والعلم قال تعالى وقل رب زدني علما léegi nag bàyyi yemu ca ba tey mi ngi lay jàngal yow taalibi bi waaye mi ngi lay jàngal yow muqaddam bi ba léegi ay solution ku ne la nag comme loolu am na léegi nag soo bëggee nag loolu yépp yàlla jéggal la ko kon na nga nga dellu ci yàlla wala budda min arrujuu ila kon yow jaam bi nekkoon ci loolu walbatikul nga delluwaat ci yàlla ci naka bi tawba ci tuub li ñu waxoon sànq ci ginnaaw mooy tuub delluwaat ci sa boroom waaye topp ndigal yi waaye it moytu tere yi waaye it nga dëddu mbooleem jëf yu ñaaw yi nga nekkoon te yàlla gërëma ko yonent yàlla Muhammad gërëmu ko man bàyyi gërëmuma ko nee na jëf yu ñaaw yooyu yëpp na nga ko dëddu waaye na nga dëddu sax àdduna ndax sa kiiraay la ci yàlla dëddu àdduna gi nag te kiwul nga sol ay yëre yu xotteeku te kiwul doo bëgg mbooleem lu baax loo xam ne ab jullit da koy taarloo déedéet waaye nee na woon nafsul muluki xaalatul miskini sama bakkan bii waaye nee na taxawaayu buur la taxaw waaye nag jëmm ji nag melokaanu miskin la yor ku nekk xam ne la baay lu baax la bëggoon lu rafet la bëggoon macha allah waaye nag loolu yëpp yiiru ko woon ci yàlla tabaraka wa taala kon loolu la lay jàngal yow taalib bi nga am boobu moo xiif moo tax ma dalee na nga dëddu àdduna wa taallum na xam ndax boo xamut doo mën a dem mooy li fi ustaas suñu sëriñ Mouhamed Gueye wax léegi mooy wax ju am solo képp kuy jullit war ci bàyyi xel rawatina ndaw mooy xam-xam nit su xamul rek du mën a dem muy xam ak liggéey ñaar yooyu ñoo dooleel ndaw xam nag benn ëpp ci doole xam yàlla ndax xam-xam boobu mooy xam-xam bi mën a gën a màgg ci xam-xam yi yàlla wax na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li lay wan njariñu xam-xam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamaloon na ko xam-xam way njëkk ak way mujj allamahu rabbuhu ilma al awwalina wal axirin yàlla xamal na ko xam-xam way njëkk ak way mujj yépp waaye bi muy sàkku ndollal ci borom ci xam-xam la sàkku ndollal qul rabbi zidni ilman yow sama borom yal nag ma dolli xam-xam kon yal nañu yàlla dolli xam-xam ma ne ko waaw kon bàyyi taalibe bi léegi nag ginnaaw tuub na nag léegi nag lan moo jaadu ci moom ban yoon la war a jaar te dootu ko wàcc mukk mu ne fa allati yaliqu lil murid an laa yaqifa sayruhu xatta ida laxiqa bi wa ashkala alaya xaala yarxalu ila cheyqin axla minni maqaaman ajib lam yujad li biñ ko laajee suñu sëriñ Mawlana Seexul Xayr mu ne lam yujad mu ne loolu du am mukk ndax li tax mooy géej du jeex ñiy tànq ci géej gi di yóbbu seen kër ñooñu danañ jeexal ñëwaat ci géej gi tànq waaye géej gi moom ma nga fa rek moom Baay radiyallahu anhu yàlla wàcce na ko ci maqaama boo xam ne maqaama bu kawe la kon bu demee ba la yow taalibe bi li jaadu ci yow mooy sa seyru bum mu dog mukk ci yàlla ba nga jot ma soo ma jotee ba say mbir lënt ci man ma ànd ak yow ñu dem ci sëriñ boo xam ne moo ma gën a kawe maqaama ma ne ajib kon yow taalib bi yow lay jàngal bu la kenn tënk bu kenn tënk ci yàlla saay boo àndeek sëriñ mu di la yàqu ci yàlla ak kum mën a doon ak maqaam bu yàlla mën a jox saay bu la mënatul dolli ci yàlla nga gis ku la mën a dolli ci yàlla bàyyi ko fa dem ci kooku mu dolli ci yàlla ndax jullit bi daa iman dafa war a yokk ci yàlla siiroo fiha layaaliya wa ayyaaman aminin dox amul fu mu yem bàyyi nee na asseyru ila llaahi yantahi wa seyru fi la yantahi li anna llaaha la nihaayata la mu ne dox jëm ci yàlla day jeex ndax boo yeggee ci yàlla mu jeex waaye dox ci biir yàlla du jeex ndax yàlla du jeex boo jëlee tey sa oto dugg jëm Dakar boo yeggee Dakar yegg nga Dakar wala boo jëlee sa oto ñëw Kër Manongo boo yegg yegg si nga Kër Mandongo waaye dese na nag pour nga xam Kër Mandongo dëgg ak Kër Mandongo bari na ay gox gox bu nekk am na nu tudd yooyu yëpp donc mooy ginnaaw boo yeggee ci yàlla yàlla am na ay xadaraat yooyu yëpp jullit bi war na ci dox xam ko am na ay azalaat am na ay abadaat am na ay abadaat am na ay awalim yooyu yëpp ay yoon la yoo xam ne taalibe bi war na cee dox. xam ko ràññee ko te loolu sëriñ bu ko xam rek moo la ci mën a gindi moo tax bàyyi nee na bu la kenn tënk yow bi mu ne wa alamoo rahimakumullah mi ngi gën a leeral ba tey mu ne na ngeen xam ne yéen yal na yàlla yërëm leen anna kasiru min al muddaain sudda annaas an sabilillah ngeen ko waa bàyyi lu tax mu ne bi adami al wax jii waroon nañ ko wax ci rajo yeeg télévision yi ba ñëpp dégg ko wallahi ak liy xew ci jamono ak tey bari na njiit yoo xam ne garaat yi ñu ràngal seen bopp te yegguñu ci wala mbub mañ solal seen bopp te ma hëpp leen xelente kon ñu dégg li bay wax fii sudda naas an sabilillah nee na bari na woote ci muqaddam yi nee na ñoom ñoo tere nit ñi pour ñu dem ci yàlla nga ne ko waa bàyyi lu tax loolu nu mën amee mu ne bi adamil istiqaama ngir ñàkk istiqaama ngir ñàkk njub gi ñàkk njub kon nga gis ne jub mooy lépp ala nee na walaw istaqaamu ala tariqa la asqaynaahum ma an gadaqa ne alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika allaa taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuuaduun yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo sóobu ci tariixa waaye nag ñu teg ca ak njub mooy jaar ci yoon wu jub muy siraat al mustaqim yàlla nee na ñooñu de la ashqaynaahum maan xadaxan danaa leen nandal ndox mu nëx ndox moo xam ne buñ ko naandee duñ mar dootuñ marati mukk mu waxaat ci beneen aaye ne ñi nga xam ne wax nañ ne yàlla mooy seen boroom waaye yemuñu ca waaye nag ñu jub nee na ñooñu de malaayika yi dinañ wàcc ci ñoom di leen ñaanal yàlla nee na ñooñu malaayika yi dinañ wàcc ci ñoom malaayika yërmande di leen ñaanal yàlla nee na ñooñu ëllëg yowmal qiyaam duñu tiit duñu ragal duñu am dara lu leen naqadi lu tax yàlla daf leen bégal lan la leen yàlla bégalee wa abshiru bil jannati allati kuntum tuuaduun yàlla daf leen ubbil aljanna ne leen kaay leen dugg aljanna jii moom laa leen digaloon moom laa leen dëhaloon tey bismillahi marhaban dugg leen udxulaha bi salaamin aminin dugg leen ko ngeen ànd ak confiance yàlla nañu ko yàlla defal kon wax ji képp ku yàlla def nga nekk njiit jiite mbooloo war nga ci bàyyi xel waaye la ci bàyyi teg mu ne nag wa man intasaba ilallaahi wa saara yasuddu nnaas an sabilillah faqad baaraza allahu bilmuxaaraba wa saara fi xiyadi ahli linkaar al ashqiya li kawnihim sababan li zalika mu ne nag képp koo xam ne nag danga waroon a woo nit ñi jubal leen tegtal leen yoon yàlla defuloo ko nga mujj di dàkk nit ñi di leen tere pour ñu mën a yegg ci yàlla bàyyi nee na yow de yàlla déclaré nga yàlla xare boo xam ne bu mag a mag la nee a nga xam ne tamit da nga mujj am lu la naqadi da mujj yit bokk ci ñay texee di yan ci yàlla musal ñu ne ko lu tax mu ne li kaw nii sababan li ndax yow yaa nekk sabab pour nit ñi bañ a mën a yegg ci yàlla ngir lan ngir sa ñàkk njub ngir lan ngir li ngay woote woo te képp ku la xool du gis melokaan bi ci yow képp ku la xool du gis melokaan bi ci yow saay boo jëfee duñ gis baay ci yow saay boo waxee duñ dégg baay ci yow lii képp kuy muqaddam jiite mbooloo war nga ci bàyyi xel na nga xam ne yow exemple nga ci say taalibe waaye exemple nga ci képp koo xam ne tey ëllëg bëgg bëgg a ñëw dugg ci diine ci wala ci tariq bi wala ci faydu bi ñu ne ko léegi nag kon ba tey ni ñuy def baay ba tey mi ngi lay wutal solution yow taalibe mu ne kon mu ne la wala budda lakum min alxuduri maana fi kasiri min al awqaat li taaxuzu anna adaba suluk mu ne ko léegi nag kon naka la def mu ne mënta ñàkk jamono bu nekk ngeen di ñëw di teew fii ak ñun di def comme ni mbokk mi waxee sànq sëriñ say woo àndeek moom wala nga toog ak moom dafa la war a fàttali yàlla bu jëfee bu waxee daf la war a fàttali yàlla te loolu mënta am nag tutul lu dul nga teew ci kanamu sëriñ bi bàyyi nee na nag kon mënta ñàkk ngeen teew ak ñun li ëpp ci seeni waxtu ngeen ngeen jël ci ñun aadaabu suluk yu ma doon wax sànq ndax aadaabu suluk kat mooy lépp an nañ ko yàlla defal comme ni ngeen jëlee woon xaqaayiqul jazb bi nga yittewoo yegg ci yàlla tabaraka wa bàyyi la bàyyi ne la tànnal sëriñ wax la sëriñ bi yenn critère la war a am watlub murabbiyan xabiran naasihan kaamila irfaanin imaaman saalihan maliku nafsaka fala tudabbiri wa kun ka mayitin dawaaman tuxbari bàyyi nee na yow mi ittewoo yàlla yow mi ittewoo yegg ci yàlla yow mi ittewoo xam yàlla bàyyi nee na la woon wutal sëriñ bu dañ ci kumpa bu dañ kumpa waaye bu dañ ci kumpa sëriñ boo xam ne jamono bu nekk mi ngi lay laayee biir di la wan fi ngay teg sa tànk boo jàddee mu jubbanti la teg la ci yoon sëriñ bu xam yàlla waaye sëriñ bu mat ak xam yàlla sëriñ boo xam ne njiit la ku baax la mu ne saay woo gisee ku mel nii nee na nanga ko moomale sa bakkan nanga ko jox sa bopp waaye nag bul xoolati dara ci ay mbiram nee na toppal ci kawam li tax mooy xool nga ne kii shariatu mi ci moom bu set wecc xool nga ne kii tegu na ci tarixa waaye xool nga ne kii mu ngi jaar ci yoonu yàlla tabaraka wa taala nee na kon kii tey fépp fu mu la digal rek donc lu yàlla digle la lay digal lu yàlla tere la lay tere kon nee na kii boo ko gisee jox ko sa bopp melal ni néew kun ka mayitin melal ni néew bi nga xam ne da nga ko tiim di ko sang te mënta wax du la wax wëlbatéema nii wala wëlbatéema nele waaye daf naan tekk rek mu ne nag wa man faala zalik ne na képp koo xam nag def nga lii ma la wax man baay faqad faaza fawzan azima nee na yow de da nga mujj texe texe gu mag ëllëg ci sa kanam borom bi te yàlla nañ ko yàlla defal waaye ëllëg yow de dooma gàcceel ci kanamu borom bi man Baye radiyallahu anhu te taaliba bu nekk war na fexe moytu gàcceel sëriñam sax ci kanamu ay jullit fii ci àdduna waaye rawatina ëllëg ci kanam borom bi wala iyaazu billah mu ne léegi nag wala budda lakum min taxyiri almanakir allati taqaw fi lixwan mu ne waaye ba tey tamit du mën a ñàkk ngeen di soppi munkiraat yi nga xam ne mooy xew ci seen diggante yéen mbokk yi liy xew ci seen diggante ci ay ñaawteef nee naa na ngeen fexe di ko doxalee doxalin bu rafet na ngeen fexe di ca wax lu rafet na ngeen fexe di ca jëf lu rafet mu nirale ko bil yad wal lisaani wal qalb mu ngi lay junj xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man raa minkum munkaran fal yuxayirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi ne ne képp ku gis ci yéen loo xam ne jaaduwul ci diine wala jaaduwul ci ay mbokk wala jaaduwul caaw aw askan nee na soo ca mane soo ko mënee dindi ak sa loxo na ko dindi soo ko mënut soo ca manee wax ak sa làmmiñ pour mu defaru na nga ca wax soo ko mënut nan nga ko naqarlu ci sa xol ba yàlla xam ne naqarlu nga ko mu ne kon nag mboolem yi xew ci seen diggante yéen taalibe yi na ngeen ci jëf jëfin bu rafet ci seen loxo ak ci seen làmmiñ waaye ak ci seen xol mu ne mu teg ci ne lettre bi mu ne wala budda liman yuridu lintifaa bi xifdi ma yasduru minna min alwasaaya nazman wa nasran mu ne waaye ba tey tamit déglul de yow taalibi bi ba tey bàyyi mi ngi lay jox ay conseil nee na la du mën a ñàkk mukk ci yow taalibi lépp loo xam ne mi ngi gongeekoo ci ñun ci ay ndénkaane loo xam ne dañ koo way wala dañ ko wasaf mooy wayuñu ko bay nee na yow taali bi war war ngaa fexe ba mokkal loolu nga wattu ko def ko ci sa bopp mu ne nag wa haadihi l baraawa xifduha waajibun li kulli mu ne lettre bii maa ngi leen di xamal yéen taalibe yi ne leen mokkal ko ne na war wareef la ci képp kuy taalibe nga mokkal lettre bi lettre bi bay bàyyiwu ci dara ci jikko yu taalibe bi war a jikkoo ak ci wan yoon la war a jaar pour tuub dellu ci borom bi ak ci wan yoon la war a jaar ginnaaw bu tuubee pour teguwaat ala siratil mustaqim bàyyiwu ci dara mu ne nag képp koo xam ne lettre bi yegg si na ci yow nee na nga ko sotti na nga ciy def ay nusxa nga tasaare ko nee na lettre bi nañu taqoo di ko jàng daa iman taalibe bu nekk waaye rawatina nag su mbooloo yi amee ñu jàng ko ci kanamu taalibe yi fàttali leen ko ndax bu fekkoon ñu jàdd yoon ñu teguwaat ci yoon mu teg ci ne ba tey mi lay digal mu ne yow taalibe bu aqimu salaat nee na na ngay taxawal julli ndax asalaatu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin julli ponk la ci ponk lislaami muy ponk boo xam ne ëllëg yowmal qiyaam moom la yàlla di njëkk a ci jàmm bi moom la ñuy njëkk a xisaab ci jàmm bi ku ko taxawal yonent bi nee na taxawal nga diine waaye képp ku ko sàggane yonent bi nee na bu diine daanoo yaa ko mabbu yal nañu ci yàlla musal kon bàyyi nee na yow taalibe bi na fonk julli waaye na nga fexe def ko na ko bàyyi daan defee mooy def ko ci laab gu mat ci sharia waaye def ko ca mbooloo ma ci boo amul ngant kon bàyyi nee na la yow taalibe bi na taxaw ci loolu nee na la ba tey na nga joxe azaka alal ji la yàlla dénk na nga ci génnee azaka alal neex na loolu waaye dafa sax ci xol te li yàlla laaj bariwul te ponk la ci ponk lislaam yi te ponk lislaam yi benn rek bu ci ab jullit sàgganee dafa mel ni ki yow moom màbb nga lislaam mu teg ci ne wa suumu ramadan nee na na ngeen woor weeru koor alhamdulilahi yàlla dimbale nañu woor nañ ko ba mu jeex ñan yàlla yan yàlla nangul ñu ko jaahi mawlaana rasulillahi ñu ngi ndokkeel ñëpp ñaan yàlla ñu fekki ko at yu bëri ndax woor weeru koor ponk la ci ponk lislaam yi bàyyi nee na la wa xajjul bayt nee na nga fexe ba aj néegab yàlla bi man istataa ilayhi sabilan soo ko mënee benn yoon ci sa dund ndax ponk la ci ponk lislaam kon bu la yàlla dimbalee jox la wërsëg te wërsëg yi moom moo la ko jox laaj la ci jëf joo xam ne fay nga kenn xamul nu mu te ci yow lay delluwaat yonent bi nee na alxajjul mabruur laysa lahul jazaa illa aljanna aj gu yàlla nangu yonent bi nee na fayam ajjana rek la kon képp ku ko man nang ci taxaw waaye it bu ca yem rek bu la ko yàlla man looyee ba nga def ko bu la yàlla dénkee ay waajur fexeel ñu def ko ndax lépp lu nit di defal waajuram nga xam ne boppam la koy defal te yàlla moo ko sant te xam naa ne waajur lépp lu ko nit defal ci àdduna loolu moo ci gën a rëy ci moom kon bu ko yemale ci sa bopp rek bu ko yemale ci sa way wayjur rek waaye bu la ko yàlla mën looy képp koo xam di nit ku baax te nga man ko it defal ko ko alhamdulilah suñu jamono loolu bëri na fi waaye rawatina ci suñu dëkk yi suñu dëkk àll yi yal na yàlla fay leen baax loolu bëri na fi loolu te yal na yàlla yaatal ko te saxal ko bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen ci seen alal li wàcc dee leen saraxe ci seen alal yi ndax yonent bi nee na xaamilu sadaqati yanju ne na kii saraxe daa iman day mucc kon nañu saraxe ci suñu alal ndax alal benn dërëm boo ci saraxe wala nga dépassé ko ci yoonu yàlla nee yàlla nee na dërëm boobu danaa ko ful man yàlla ci ay juróom-ñaar ci ay juróom téeméer ay juróom-ñaar téeméer junni ba ko ëpp ilaa maa sha allahu bi adhaafin mudaafa kon ñi ngi sant di ndokkeel mbokk yi fi teew yépp waaye rawatina ñi nga xam ne alhamdulilah jël nañ seen alal def ko ci jumaa ji ñu ñaan yàlla yann yàlla fayante ñoom def nañ ko fañ ko war a def ndax lii néegu yàlla la yàlla nee na képp ku ma tabaxal néeg fii ci àdduna ma tabaxal la kër ci ajana nee na ku ma tabaxal fii ci àdduna néeg bu toll ni bépp suuf yàlla nee na ma tabaxal la kër wala ay kër sax ci ajana kon ñi ciy def seen dërëm ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñaan yàlla ne buñ ko réccu te duñ ko mos a ñi ci defe gulit ñu ngi leen di woo ñu xam ne yàlla la ñuy defal yan na yàlla gën a yaatal te jumaa ji ñu ngi ñaan yàlla yan na yàlla taxawalaat ko ci barke yonante bi ci anam gu gën a rafet bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sant di gërëm commission bi yor liggéey bi ñoom ñëpp ak ñi leen ciy dimbale ñan yàlla yan yàlla mottali kon bàyyi nee na na ngeen mu ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadisu muslim nee na al tahuur chatrul iman muy laab gi ma doon wax sànq ci ginnaaw yonent bi nee na mooy genn wàllu ngëm yàlla ndax lépp bépp jaamu yàlla bu doomu aadama di def wala ba ab jullit di def laab mooy buntu ba kon moo tax yonent bi nee na laab daal mooy genn wàllu ngëm bàyyi nee na alhamdulillahi tamla ul misaan sant yàlla day fees balaas kon buñ dañ mukk ci sant yàlla alhamdulillah ñëpp wax alhamdulillah ñu ngi sant yàlla ci jamono ji di sant yàlla ci weer wi di sant yàlla ci liñu yàlla defal ñaan yàlla yal na yàlla yokk ko ndax yàlla moo ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante man yàlla moo dolli kon buñ dañ di sant yàlla yàlla di ñu dolli yàlla bu yàlla dañ di ñu dolli ci zahir ak ci baatin bi jaay rasulullah sallam ne yàlla musal ñu ci weddi ndax moo neen wala in kafartum inna azabi la shadid wal iyaadu billah mu ne wa subhanallah walhamdulillah nee na sabbal yàlla ak sant yàlla nag nee na tamla aani aw tamla aw ma bayna samawati wal ard nee na sabbal yàlla mooy tasbihaat ak sant yàlla nee na ñaar yii tiyaaba ji ni mu toll fees na diggante asamaan ak suuf kon buñ ci dañ mukk mu ne wax salaatu nuur bay nee na julli leer la julli leer la leer goo xam ne day jolli ci xool ñi nga xam ne ñu ngi toroxlu ci yàlla waaye nag leer googu kenn du ko am lu dul ñi nga xam ne ñu ngi toroxlu bay nee na wa sabru diyaa nee na na ngeen sax ci muñ na ngeen sax ci muñ ndax doy na ci rek yàlla tabaraka wa taala ne inna allaha maa sabirin yàlla nee na yàlla maa ngi ànd ak ñi muñ waaye nag nañu xam ne muñ asabru yonent bi nee na inda sadmatil ula bul dem ba ñàkk pexe door muñ su boobaa muñatoo da ngaa ñàkk pexe moo tax jaam bi bu yàlla dogalee ci moom bànneex na muñ te sant yàlla bu yàlla dogalee ci moom safaan na muñ te sant yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci hadis ne ajaban li amril mu'min yonent bi nee na maa yéemu ci mbirub jullit jullit bi daal léppam yiw la ñu ne ko lu tax mu ne jullit bi daal léppam yiw la ñu ne ko lu tax mu ne bu ko yàlla defalee xéewal mu kontaan sant yàlla yàlla nee na yonent bi nee yàlla nee na mu nekkal ko yiw mu ne bu ko yàlla tegee safaan mu muñ sant yàlla nee na mu nekkal ko yiw mu ne kon jullit bi léppam yiw la kon bu ñu yàlla joxee xéewal mu neex nañ di sant yàlla ndax yàlla dolli ñu waaye bu ñu yàlla tegee safaanit nañ muñ te sant yàlla ñu ngi ñu ngi muñ di sant yàlla ci safaan yi ñu fi yàlla teg yëpp ci biir koor gi ci suñu mag ñu baax ñi fi génn ñaan yàlla ñoom ñëpp and yàlla yërëm leen te jéggal leen xare leen aljanna waaye nee na wal quraanu xujjatun lak aw alayka nee na alquran aw layla wala war aw layla ci yow ci naka mooy jullit bi bu fekkee li la war sa diggante alquran yaa ngi koy def te moom lala yàlla sant mooy alquran wooreef la ci bépp jullit nga def ci te jàng ko mokkal ko jëfee ko wala boo ko mënta mokkalit nga def ci yitte balu la ci yàlla wërsëgal loolu wareef la ci bépp jullit alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ñun ci li ñu yàlla xéewal ci suñu jamono rawatina waa Saalum alhamdulilah seen yitte ci alquran nga bàyyi loolu moo doon yitteem nga xam ne alquran moo doon léppam kon mi ngi la ci ñaax yow jullit bi ndax ñaan na ci wal tajaalan xifda kitaabika alkarim karamati ila liqaayika alazim shawqi wa xubbi fiika la yashiyi siwa xululi wa irtixaali fii bàyyi nee na yow yàlla maa ngi lay ñaan wattu gii wattu téere bii ca téere bii di alquran mu nekk sama karaama waaye nee na yow yàlla maa ngi lay ñaan mbooleem karaama yow mosa may ab yonante wala ab waliyu ci àdduna te bëgg ma koo may yàlla na nga ko def muy mokkal sa téere bi moo tax yàlla may na ko ci cër bu rëy boo demee ci xadaraam bi alhamdulilahi ñi ngi koy mokkal di ko jàng di ko tari jamono bu nekk ñu ngi ciy def ay musaabaqaat alhamdulilah di ci joxe seen alal ñaan yàlla yal na yàlla loolu yal loolu sax moo tax jullit bu nekk danga war a fexe ban alquran nekk aw lay ci yow nu muy nekkee aw lay ci yow mooy li la war ci moom boo ko defee jàng ko xam ko jëfee ko ëllëg yowmal qiyaam alquran mooy doon sa avocat mooy taxaw ci kanamu borom bi lépp loo mos a def ci lu ñaaw ba yàlla gis ko mere la alquran mooy taxaw nekk sa avocat yàlla jaam bi kii ku ma bëggoon la ku ma soppoon la ku ma daan jàng guddeeg bëccëg suba ngoon waaye yemu ci woon lépp bépp santaane bu nekk ci man daana ko jëfee lépp bépp tere bu nekk ci man daana ko moytu kon yàlla jaam bii daal li ma bëgg mooy dugal ko ajjana yàlla ne lay iqra warqa wa rattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna mantilatuka fi axirin fi axiri ayatin taqra man la ko yonent bi waxee ci àdduna ci ci ci ci yonent bi nee na ëllëg yowmal qiyaam ñi doon jàng alquran ba mokkaloon ko wala mokkaluñ koon sax waaye def nañ ci seen yitte bala leen ci yàlla war sëgal ñoo am ko ci waaye bëggoon nañ ko jafee woon nañ ko ñooñu alquran dañ leen di wax ni leen jàngal nga yéeg iqra warqa dañ leen jàngal nga yéeg escalier ba fa nga yemoon ci alquran aaye bi nga mujj a mokkal fam yem yow sa kër ci àjjana foofa la yem xam naa ñi mokkaloon faatiha rek seen kër dana sori waxuma laak nag ñi mokkaloon ñaari xisib wala ñi mokkaloon kaamil bi kon alhamdulilah ñun ñëpp nañ ci def yitte di gërëm way jur yi waaye di gërëm ñi nga xam ne ñoo yor daara yi te di ko taxawee nga xam ne yonente bi jàngale ne ci hadis ne ñoo gën ci nit ñi xayrukum man taallama alquran wa allama yonente bi nee na ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran te di ko jàngale waaye wayjur yi nga xam ne tamit ñooy jël seen doom di leen yóbbu ci daara yi di muñ njariñ yi leen seen doom yi mënoon a jariñ ñu muñ ko ngir jox seen bopp yàlla jox seen bopp alquran jox alquran seeni doom ñooñu it ëllëg yowmal qiyaam waykat ba nee na woon imaamu Shaatibi daf ne leen daf ne woon wayjur yooyu déglu leen di leen yàlla di terale ani an mari an walidaaki alayhima malabisu anwaarin min attaaji wal ula wa maa zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wa safwati lmala nee na ñi nga xam ne dañoo sacrifié woon seen adduna jël seeni doom muñ njariñ lañ leen amal yépp ñu muñ ko jël leen joxe leen ci daare yi ñu jàng alquran nee na ëllëg yowmal qiyaam yàlla daf leen di décorer dafay defar benn pëjoom teg benn chaise boo xam ne or la xaalis la yàlla ne leen xanii an tey yéen lay ndokkeel yéen way jur yi déglu leen yow mi mokkal alquran yàlla nee na ñëwaguma ci yow waaye tey dinaa ndokkal say way jur xanii an mari an walidaaka maa ngi ndokkeel sa ñaari way jur yow mii jàngoon alquran ba mokkal ko malaabisu anwaarin yàlla daf leen di solal ay yére yoo xam ne lépp leer la nga xam ne fépp fu nit nekk daf leen di séen solal leen ay mbaxana yoo xam ne leer la wurus la xaalis la yàlla nee na bésu pénc loolu lay faye lenn ci loolu balaa ma leen di yóbbu ajana lenn ci loolu laay fayee wayjur yi nga xam ne ñoo joxe woon seeni doom ñu jàng alxuraan ndaw lu rëy nañ ci taxaw yàlla nañ ko yàlla defal mu teg ci ne fama zannukum bin najli inda jazaa'ihi mu ne comme ay wayjuram moom xale bi mokkal alxuraan ñoom la yàlla di fayee loolu mu ne kon léegi lu ngeen njortu ne kon doom ji mokkal moom lañ koy fayee kenn xamul fay gënum toll nañ fexe yàlla boole ci yooyale pay yan nañ ko yàlla defal moo tax képp ku ci am doom responsabilité la ci yow bu ko bàyyi mooy taxawaalu jàngal ko alquran jàngal ko diineem te loolu ëllëg yow lay jariñ ndax saay woo faddoo dem barzaq di nga soxla ko la ñaanal te boo jàng lu doon say doom wallahi doo am ko la ñaanal ndax buñ la suulee ñu fàtte la bëri na fi ñoo xam ne wallahi bañ leen suulee ci suuf dañ leen fàtte parce que lu tax defuñ woon yitte ci seeni doom pour yar leen ci diine jàngal leen def li yàlla santaane ci ñoom pour seeni doom man leen a taxaw ëllëg seen ginnaaw ba tax yonent bi nee na jullit bu dee génne àdduna fépp fu mu doon jëlee yiw yàlla nee na dañ koy arrêté ba mu des ñett ñett yooyu doom ju baax yoo yar ci diine jàngal ko mu di la ñaanal nga bàyyi ko fi ca la bokk yàlla nañu ko yàlla defal kon loolu tax bàyyi digal nit ñi ñaax leen ci alxuraan kon nee nag yonent bi wax na ci hadis ne kullu naasi yaxdu nee nañ ñëpp xëy nañ waaye nag fa baayu nafsa am na koo xam ne bi mu xëyee moom dafa jaay boppam jaay sa bopp mooy nga jël sa bopp jox ko leneen lu dul yàlla wala nga perdre sa temps ci loo xam ne dara du ci yàlla àdduna rek nga xam ne boo dee perte yal nañ ci yàlla musal perte mënta romb loolu wallahi yàlla ma ngay wax ci alquran ne ëllëg yowmal qiyaam ñi nga xam ne danañu rëcc lu taxoon jaamuwuñ seen borom danañu ne yàlla ak a neexoon tey ngay may ñu benn minute wala benn seconde rek ñu delluwaat àdduna rek pour def lañ ñu santoon ginnaaw buñ gisee mbugal mi leen di yàlla xadul mu di leen xaar yàlla ne leen déedéet law laa axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min alsaalihin li tax mu tànn sarax ci ngay xamee ne sarax lu màgg la moo tax bàyyi boole na ko ci yim la dénk ajalin qarib waxut fa usalli waxut fa asuum waxut fa axuj dafa ne fa asaddaq wa akun min alsaalihin yàlla ne ko walan yuaxir allahu nafsan ida jaa ajaluha yàlla ne ko man c'est trop tard bakkan bi yow tey li ma la nattaloon ci loo war a rekk ci àdduna jeex na li nga fi waroon a naan jeex na li nga fi waroon a nooy jeex na mbooleem loo fi waroon a jëf ci lu baax jeex na alal ji nga dencoon saraxe woo ci jaamoo ci yàlla yàlla nee na perte nga ko ndax li tax moomatuloo ko dañ koy séddoo sa ginnaaw saa ko ceeb biñ doon natt sax ci kër gi boo dee dañ ko war a takk kon nga xam ne ku jaamuwul yàlla wala defoo li yàlla santaane perte nga kon bàyyi nee na la wal quraanu xujjatun lak aw alayk moo tax ci ñaanam ga ca xatmu ba ne allahuma ij'alhu alayna wala taj allahuma ij'alhu lana wala taj'alhu alayna yàlla yàlla na nga def alquran muy suñu lay mu ñu layal ëllëg yowmal qiyaam waaye yàlla boo ko def muy lay wu ñu war mooy ëllëg nga taxaw alquran tuumaal la ne la yàlla sa jaam bi daf ma wanoon ginnaaw yittewoo ma woon daanu ma jàng su boobaa yow yaay wëlbatiku di lay yal nañ ci yàlla musal yonent bi nee na kullu naasi yaxdu fa baayu nafsa ñépp xëy nañ am na koo xam ne jaay na boppam adduna am na koo xam ne nag goreel na boppam mooy dëddu na adduna jublu yàlla mboolem li ko yàlla sant ndax li tax ñu ne goreel na boppam mooy boo ci saxee ba dee yàlla dina la dugal àjjana ëllëg mooy goreel nga sa bopp ci safara waaye goreel nga sa bopp fii ci àdduna ndax kenn du la joxañ baara ci ci ndëng wala nga def lu yàlla tere wala nga bàyyi lu yàlla santaane waaye nag dina am na koo xam ne moom alak na boppam mooy ci ñaawteef rek la dëkk wala iyaazu billahi ci yàlla musal yàlla mu indi benn aaya in qaala allahu taala wa asdaqul qaa'iliin yàlla tabaaraka wa taala wax na ci alquran lan la wax mooy inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'i zil qurbee wa yanhaa anil fahshaa'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkaruun aaya bii dafa ëmb lu bëri dafa dajale lépp moo tax radiyallahu anhu Baay radiyallaahu anhu boo xoolee aaya bi moom la jëloon dugal ko ci mujjantalu ay xutbaam pour jàjj nit ñi ndax yàlla dafa digle daf ci digle ñett waaye daf ci tere ñett bu ci njëkk a digle mooy maandu na laaha ya'muru bil adli wal ihsaan soo maanduwul di nga duggul ci sa yoon nekkut na loolu baaxul ak rafetal wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla na ngeen di rafetal ndax man yàlla dama bëgg ñi rafetal ndax lu tax mel ni da nga ko ne waaye yàlla lu tax mu ne hal jazaawul ihsaan illa al ihsaan lu rafet lu rafet rek mooy payam fii ci àdduna waaye lu rafet rek mooy payam ëllëg yowmal qiyaama allahumma ij'alna min al muhsinin léegi nag mu tegalaat la ci ne wa itaay zil qurbe waaye na ngeen di jox seeni jege ñaale mooy bu la yàlla dénkee alal ak lu la yàlla mën a dénk ba ngay joxe al aqrabu awla ci gën a jege gën a yeey muy point boo xam ne wallahi jamono ji war nañ ci bàyyi xel ndax rawatina nag ñi nga xam ne ñu ngi jël seen alal di ko def ci yoon yàlla di ci dimbale nit te ku gën a jege gën a yee balaa ngay dimbale jàmbur ba ca àll ba yàlla nee na dimbalal sa mbokk ba pare balaa ngay bale buntu kër jàmbur waaye baleel sa buntu kër ba mu set ndax kenn du la yedd yaa ngi dimbale jàmbur te dimbale sa mbokk ah baax na de amaana yàlla nangu ko waaye de defoon ko ci sa mbokk de moo gën moo tax al aqrabu awla kon nañ ci bàyyi xel bu ñu yàlla dénkatee lu ñuy dimbale balaa ñu koy joxe jàmbur te suñuy mbokk soxla ko nañ leen ko jox bay teg yàlla teg ci ne wa yanha anil wal munkar nañuy tere ñaawteef ak def lu ñu sib wal bax yi ak mbewte yii yëpp alxuraan tere nañ ko nañ ko moytu mu teg ci ne fa waylun kullal wayl liman laa yatalaqa xukmallahi wa rasulihi bil qabuli taam bàyyi nee na mbugal bépp ak mbugal la ko xam ne nanguwal yàlla dogal nangu dogal yàlla dafa bokk ci sartu ngëm mooy gëm dogalu yàlla nangu ko jàmbi bi yàlla mooy sa borom waaye nee na jaam yow yàlla mooy sa borom yow bëgg nga loo def mu neex yàlla waaye kon kay fexeel ba lépp lu yàlla def ci yow mu neex la yow bëgg nga loo def mu neex yàlla kon li yàlla dogal ci yow na la neex te loolu moo tax muy mooy aaye bi ñu wax sànq raadiya ak mardiya fexeel ba booy dee nga gërëm yàlla yàlla gërëm la mu tekkee ne lakin man balaga kitaabuna wa taaba wa tadaarak ma amkana fa lahu saadatu daarayni mu ne nag lii ma wax ci leetar bi képp koo xam ne leetar bi yeg si na ci yow te safaan bi nekkoon ci yow mooy yaa ngi woon ci yoon wu safaanoo ak lii ma wax nee na ginnaaw gi nga tuub dabaatal dellu ci yàlla bàyyi nee na yàlla dina la defal texe adduna ak alaxira yal nañ ko yàlla defal bàyyi nee na mu indi benn ay alquran afallahu amma salaf yàlla mooy jéggale li paas yi mu ne nag képp koo xam ne wax jii ma wax wa man lam yasjud fa ushhidu llah wa ushhidu anni bariun minhu wala abra'u min illa baada baraatillahi wa rasulih allahu akbar mu ne nag képp koo xam ne wax jii ma wax man baay yëngalu la maanaam jajj wuloo ci waaru wuloo ci bu nekkoon ci beneen yoon nga wëlbatiku tegu ci njub bàyyi nee na kon maa ngi seedaloo yàlla ci seen kanam maa ngi seede ne yow bàyyi neen na xam ne man dañ naa ci yow te nag nee na man bàyyi duma dañ ci kenn lu dul ginnaaw bu yàlla dañee ci yow ak yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar kon lu doy waar dañ ci bàyyi xel moo tax képp kuy jullit ib taalibe rawatina ngay xaskanale sa bopp ci baay na tegu ci charia bu leer bidaa'iri shara'i wa nuuril mubiini wa rabbi saalikiina bila shakkin wala riib waaye nee man sama taalibe ci sharia bu leer nañ laa leen yar ak ci leer gu bér mooy leer goo xam ne képp kum jolli ci yow nga jox ko xadara yàlla bi nee lii ci laa yar samay taalibe ci lu amul benn sikki sàkk kon nañ ci bàyyi xel dañ ci bàyyi xel léegi nag lu mu ci teg mu ne waaye wa aleykum bi kas bi kat mil asrar mu ne léegi nag déglu leen ma dénk leen mu ne maa ngi leen di dénk nag ngeen di nëbb mbóot nëbb mbóot dafa baax siru mbóot duñ ko siiwal ila ala ahliha lu dul ci ñoñam ndax li tax li ñuy bañ mooy nit ki da koy wax loo xam ne dëgg la mu weddi ko te fekk dëgg la moom moo fa yeggul yàlla sanctionné ko te loolu yàqu ko ko teg kon nañ di nëbbu mbóot kat beneen laa yaktumu sirra illa kulli di thiqat wa sirru inda liaami nnaasi mabzul السر عندي في بيت له علق ضاعت مفاتحه والباب مغلوق لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة والسر عند لئام الناس مبسول béykat bi nee na mbóot ci man de dafa mel ni dafa nekk ci néeg ma tëj ko ba pare réeral caabi ya nee na mbóot ci man noonu laa koy sàmmee dama koy dugal ci néeg tëj ko ba pare réeral caabi ya am naa luñ tëj ci nekk réeréer caabi jot ci du gaaw de waaye déglul nee mbóot nag ci ki gën a bon ci nit ñi da koy yulli ñëpp di ko gis wala yaasu billah kon nañu nëbb mbóot bàyyi nee na na ngeen bàyyi tamit di béral wax ay mbóot na ngeen bàyyi di béréb bi kalaami ahlil xaqaayiqi wax waxu lam fiy bañ mooy loolu ba tey rek seen wax yépp mooy yàlla tabaraka wa taala la baatin la te baatin boobu képp ku ci yeggul boo ko waxee mu weddi ko te safaan la koy jural wa qaala taala man yakfur bi taaxuut mais mu tekki ne wasluku siraat al mustaqim nee na na ngeen sóobu nag yoon wu jub muy siraatal mustaqim siraatal lazina anamta alayhim ayril maxdubi alayhim wala daal yoon wi nga xam ne yoon wu jub la yoon wi nga xam ne wax jàngal nañ ca Faatiha yoon wi nga xam ne moom nga xéewaloon ñi fi jiitu woon ñëpp yoon wi nga xam ne mooy yoon wi nga xam ne képp ku ci jaar da ngay tegu ci yoon wu jub ëllëg alhamdulilah yàlla dina la wàccee fi ala manzila ndax li tax. mooy ku wàcc yoonu jub di nga jaar ci yoonu seytaane yàlla nee nañu wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum bu leen topp ñall yi ñall baaxut boo ko toppee rek boo tudd di nga dox ba daanu ci kamb te loolu lañ lay bañal wa man yakfur bi taaxooti wa yumin billah taaxoot mbiru seytaane bu nangu seytaane xëcc la ci boppam te loolu mooy mission am bu ko yàlla dàqee dafa géñ ci tur yàlla wu mag fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain waaye lan la ko yàlla tegal illa ibadaka minhum almuxlasin dafa géñ ne yàlla maa ngi géñ ci sa tedd nga sa jaam ñii dinaa fexe bañ beew ñoom ñëpp dinaa fexe ba ñoom ñëpp ñu wàcc sa yoon wu jub wi jaar ci sama ñal yi yàlla ne ko loolu de amaana doo ko man ci sama jaam yi nga xam ne ñoom ñu jub lañ fexe nañ ba tegu ci siraatal mustaqim ñoom ñu dee amuloo ci ñoom benn yoon yal nañ ci yàlla boole yàlla nee na taaxut yooyu nag képp ku ko weddi nga gëm yàlla tegu ci njub yàlla nee na faqad istamsaka bil urwatil wusqa na nga xam ne yow jàpp nga ci yoon wu jub lan fi saama laha wallahu samiun alim nee nga xam ne jàpp nga ci buum gu dëgër buum goo xam ne du dagg du roowañ du fecceeku te buum googu nag mooy alquran mooy njub alquran mooy njub yàlla nee nañu wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen jàpp yéen ñëpp ci buum ak yàlla gi ndax buum googu muy alquran mooy buum ak dëgg gi bu ngeen ko defee du ngeen taqali ko ndax buum di tax alquran yàlla nirale ko buum du hasard de moon léegi fii dox bu la jaaxal li ngay xalaat mooy yeew ko yeew moo lay indil solution te yeew buuma koy def ak yeneen ak yeneen ak yeneen boo soxlaa ndox léegi ci teen bi bu amul buum doo jot ndox buum ngay takk yoor ca biir boo soxlaa léegi dara ci garab gi boo amul loo ko lonkee lonk daanaka mooy buum rek ndax da ngay xëcc wadd kon yàlla ngi lay jàngal li nga soxla ci suuf ak li nga soxla ci kaw ak li nga soxla ci diggante bi lépp boo ñëwee ci alquran di ko fekk lépp maa farratna fil kitaabi min shay alquran téere la boo xam ne lépp a ngi ci kon waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraqu bàyyi nag mu ngi jublu nag ci tëj lettre bi mun wa anta yaa ahmad caam waxoon naa la ci tàmbali ba ne la lettre bi bàyyi mu ko adressé ñaari nit ak képp koo xam ne ne yaa ngi askanoo ci moom wala képp koo xam ne leetar bi ñëw na ba yegsi ci yow kon nañ jàpp ne ñi fi teew ñëpp bàyyi ñun lay waxal kon yal yàlla defal ñu dégg ak topp defal leen mu ne ko yow Ahmed Thiam balligh hadha al kitab ila kulli man mu ne ko lettre bi na nga fexe ba képp koo xam ne mu ngi askanoo ci yow te askanoo ci ñun fexe lettre bi yegg ci moom na nga def de mu ne ko lettre bi nanga ko mool fa arsil ila kulli kabirin fi mahallin nusxa minhu li yaqra liman maahu wa liman xawla mu ne ko waxuma la yow waxuma la say taalibe waxuma la képp ku dégg lettre bi waaye képp ku la jege sax te nekk mag nekk yarekat yónnee ko lettre bi mu jàng ko jàngal ko ay taalibeem ndax mu dégg li ma ci wax te ñu ñu mën koo jëfee mu ne ko nag wa arju min allaahi an tatalaqaahu minkum quluban saafiya bàyyi ne maa ngi yaakaar nag ci yàlla yal na yàlla dénk leen ay xool yu sell yu set yoo xam ne lépp li ma wax ci leetar bi di ngeen ko taataan jëfee ko yal nañu ko yàlla defal mbooleem ko fi teew góor jigéen mag ndaw yow la bàyyi di waxal nee na leetar bii lépp lu ma ci wax yal na yàlla dénk leen ay xol yu sell yu set ba wax ji dugg ci seeni xol yal na yàlla nangu ñaan yàlla may leen nopp yu set yoo xam ne dana mën a dégg sama wax ji mu ne wallaahu yahdinaa wa yahdikum yal na yàlla jubal yal na yàlla jubal leen wassalaamu aleykum wa katara ibrahima alhaji abdullahi attijaani bi madinati kawlax xarasa allahu min kulli baas ne lettre bi bàyyi moo ko bind doom alxaaji abdullahi attijaani mu ko bindoon ci medina kawlax xarasa allahu min kulli baas yan na yàlla xaar ko ci bépp ayib yan na yàlla xaar ko ci bépp ayib yan na yàlla xaar njabootam ci bépp ayib yan na yàlla xaar ay taalibeem ci bépp ayib yan na yàlla xaar ay muqaddamam ci bépp ayib wa kullun yakunu ala sirati almustaqim ñëpp nekk ci yoon wu jub tey jubale yan na yàlla defal ñu ko defal leen ko kon nag alhamdulillah yegg si nañ ci xaaye bi in uridu illa al islaax ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah walhamdu awalu daawaana wa axiru walhamdulillahi min xiinin ila xiin wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh